Ba xam naa moom lay tëj te Amadou Ba mën naa yor réew mi lu dul Amadou Ba moom du dara lu leen mën a waxit ay nax la